Téléphone 33 823 81 87 ou le 77 998 04 04. L'eau multimédia, l'innovation. Notre passion. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin. Sayyiduna wa habibuna wa shafi'una Muhammad. Wa wa ala alihi sahbihi al-Ghurri al الميامين di nuyu bu baax tey ziyaara jëmm yi nga xamante ne ñoom ñooy ànd ak ñun ci jotaayu as-salafu ma alquran muy mag nan la ñu daan dundee ak téere bii di alquran al karim ñu koy amee ci kër gi di la maison di Coran tey nag ñu war a wéy ba léegi ci di leen xamal xifdul quran al karim ala al ard ni yàlla buur bi subhanahu wa taala sàmmi alquran al karim ci kaw suuf ñu waxoon leen addawaai wal asbaab yàlla awee ci yonte yàlla muhammad alayhi salatu wasalaam daa di wattu téereem bi di alquran al karim tay nak ñu wara andi tombu bi nga xamantene mom moy mudarasatu jibril ma an nabiy sallallahu alayhi wa sallam hada alkitab ay hada alquran yonent sallallahu alayhi wa sallam niko yàlla bur bi subhanahu wa taala assuré le ne ko sa nuqri fala tansa man mala jàngal do fàtte yàlla dal di koy yombalal ci lamiñam yàlla daal di koy denc ci xolom ci xolam nazala bihi ruuxul aminu ala qalbika li takuna min almundirin waaye teewul at mu nekk جبريل دادان نيو دي نفر اك يونتي بي صلى الله عليه وسلم ليغا خامتاني مومودي القران الكريم كوم ليغا خامتاني نوني لاكو امام البخاري генي تي حديث ابن عباس رضي الله عنه مي خامني خملني كان النبي صلى الله عليه وسلم اجود الناس بالخير يونتي يالا محمد عليه الصلاه والسلام مو غنونا تابي جامو يالي مانام نيت نيب يونتي يالا محمد مولين غنونا تابي لا اله الا الله تابي سنكو وخي mooy albadlu wal infaq duna dammi awi riya awi al ada mooy nit ki nga xam ne dafay joxe yuti qabla an yusal loolu mooy tabe nit ñu bari dañuy dañuy jaawatle tabe su fekkee nit ki dañ koy laaj mu door a joxe loolu bokkul ci tabe ki tabe dëgg mooy ki nga xamante ne day jël alalam def ko fam ko war a def balaa ñu ko koy laaj day gis ki nga xamante ne aajoo na ko mu jox ko ko balaa kooku di ko tàllal loxo parce que tàllal loxo bokk na ci mandargay toroxtaange moo tax ki tabe dafay joxe joxe ci sutura joxe di muñ joxe mu xamne ci xol lay joxe kon bippi jam bu ngeen xam mu tabe abdullah ibn abbas nene yonti yàlla muhammad alayhi salatu wasalaam moo gënoon tabe ñep te ci wéru koor la yonti yàlla muhammad daan gën tabe manam su fekkon tabe amna dayo yonti yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam fa tabe yam manam fa limitu tabe yam wéru koor yonti yàlla muhammad alayhi salaatu da fay yegg lu ko waral ndaxte li anna jibrila kana yalqahu jibril da don daje ak mom fi kulli layla guddi gu nekk ci weeru koor ñuy nafar li nga xamante ne moom moo di alquran alkarim yonti yàlla muhammad abdullah bin abbas nee ne moo gënoon a tabe ci weeru koor ar riixul mursala maanaam taw boo xamante ne yàlla daf koo yónni mu andi yërmande mathalan nawet bi suy dugg si suuf si daal di waw ñax amatul jur yi daal di jaaxle amatul ñu lekk yàlla daal di yebal ngelaw loo xamante mooy ñëw daal di dajale niir yi ci saa si mu taw ci nes tuut nga gis suuf sip daal di génne ay ñax jur yi am lu nuy lekk ñu tekki tuuti la ñu jiwoon yëpp daal di ñor doomu aadama yi am lu nuy dunde nee na ngelaw loolee njariñ li mu amal waa adduna yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam moo ko daan gën kon ñu déggee ci lenn mooy nit ki ak loo mokkal mokkal al alquran al karim at mu nekk war nga dem ca daara ja nga daal di tariwaat sa kaamil kon loolee am na ñoo xamante ne ba ñu jotee seen shahada wala seen ijaza la ñu gëj daara ja mën nañu toog ay ati at duñ dellu ca daara ja moo tax kàng fóori dëgg dëgg dëgg at mu nekk war nga dellu nga tari ñëw xam ne yow dee sa alquran ba léegi moom mu ngi ci parce que li ko waral ngir sabaat gi maanaam alquran gën a mën a sax ci li nga xamante ne moom mooy xolu yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam kon nafar gu bari day saxal alquran al karim ci li nga xamante ne moom mooy lan mooy mooy mooy mooy ci xolam li nu sabita bihi fuaadak wa rattalnaahu tartila kon eh, kàng fóor yëpp maa ngi leen di dénk xuffaad eh, yi dañoo war di dellu ca daara ja at mu nekk toog fa une semaine wala ñetti fan ñu daal di ñëw daal di daal di daal di tariwaat alquran al karim ba sëriñ bi dégluwaat leen ñu door a yeeweekuwaat loolu at mu nekk ñu daal di cay góorgóorlu waaye yonte yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam bi nga xamante ne dund na ci loolu ba eh, diggam daal di jege si maanaam bi balaa muy waaj bi muy waaje faatu comme ni nga xamante ne moom mooy xadiisu masruq mu nettale ko ci yaay aïsa radiallahu anha yaay aïsa daal di koy nettali ci yaay fatima radiallahu anha mu ne asarra ilaya annabi sallallahu alayhi wa sallam yaay fatima di xam le ne yonte yàlla muhammad alayhi salatu wasalaam daf maa dee ne maa dee jibril day ñëw at mu nekk di nafar ak man alquran alkarim may tari ci moom alquran waaye at mii dee ñëw na ñaari yoon def naa ko ñaari yoon parce que boobu fekk yonti yàlla muhammad alayhi salatu wasalaam mu ngi waaj génn aduna yaay fatima bi mu yonti yàlla muhammad ne ko man de li tax maanaam ni may firree loolu li waral mooy que ne ajali aw xadara ajali maanaam sama génne aduna danaka jotna na kon loolu itam ñu amaat ci beneen dégg-dégg mooy que yonti yàlla muhammad alayhi salatu wasalaam daan na tari alquran at mu nekk benn yoon ci jibril waaye bi muy waaj a aduna mu daal di koy doublé def ko ñaar kon loolu mooy que ne mag maanaam alquran ndaw daf ko war a jàng fu nekk waaye mag wartatal leneen lu dul alquran al karim mag wartatal leneen lu dul alquran al karim maa ngi koy dénk sunuy wayjur yi ak suñu maam yi góor ñeek jigéen ñi ñoom ñëpp ngal la kaamilu alquran al karim moom moo gën a jekk ci ñoom di wax yaay booy bii di ma seetaan wala suñu way jur bu góor bii di ko wax ne amut lu gën a rafet ci yow say sët ak i say doom daal di lay fekk nga tiim kaamilu alquran al karim di jàng parce que xam nañ ne soo jàngee bay jeexal da leen di ñaanal te loo leen ñaanal yàlla buur bi subhanahu wa taala daf koy nangu kon mag amul temps bu muy perte rawatina muy jël temps bi yëpp di ko def ci whatsapp léeg-léeg whatsapp bi sax mën nañ koo nangu ci lan mooy su fekkee ne dafa bokk ci ay groupe groupe bu alquran al karim groupe yoo xam dañ fay jàngale yonte yàlla muhammad maanaam groupe diine yi yoo xam dañ fay jàngale l'islam yàgg na dugg rek déglu darse bi nga xamante ne moom moo fa ñëw suy commentaire mu commentaire daal di tëjaat téléphone waaye information bu ñëw nga bëgg koo lire te li nga dese bariwutul léeg-léeg am ñoo xamante ne mag ñoo xamante dañu dem ba TikTok <laughs> TikTok du pour mag am ñoo xam ne dañu dem ba ba Facebook maam booy <laughs> bàyyil Facebook bàyyi leen Facebook bi bàyyi ay TikTok ak yu mel noonu WhatsApp bi daal mën nañ koo nangu waaye na nekk groupe alquran la nga jële fa looy yokkoo parce que xale yi xuraaw yi ñoom ñu ngi ci groupe yi di jàngale alquran al karim nga xamante ne soo fa duggee di nga mën a jëriñu bu baax a baax a baax waaye mag moom na nek ci téré bi sëgg ci kon lolé lañuy dégg yonte yàlla Muhammad bi mu démé ba génnam aduna di waji jot jibril dafa ñëw ñaari yoon ñu daldi nafar li nga xamné mom moy kamil alquran imam net li wat nako ko ba léegi muy xadiisu abi hurayra radiyallahu anhu muy saxal loolu di xam le yonte yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam jibril da daan ñëw di nafar ak mom alquran al karim at mu nek daan nañ ko def ci at mu mujju bi ñu def ko ñaari yoon waaye yemu fa yontu yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam kaana yaatakifu da doon itikaaf maanaam dugg ci jàkka ji di jaamu yàlla weeru koor bu nekk fukki fan waaye ci weeru koor bu mujj bi ci dundam ñaar fukki fan la ko def kon yooyu yëpp dañ cay dégg mag lépp lu mu doon def ci jaamu yàlla daf ko war a ful maanaam daf ko war a doubler tripler ko daal di ko yokk kon mag warul am jotu péemi neexul benn yoon sa doom romb la nga toog ca péemi ba sa doom romb la nga toog ca ca ca bërëbu lonaas ba ngeen baal fu mu yi sa la ci da nga di carte sa doom romb la nga toog foo nga di werante sa doom romb la nga di werante ci ay mbiri aduna sa doom romb la tout le temps guddig bëccëg yaa ngi ci watta bi di vocal waaw vocal damay vocal ñoom damay vocal la ñuy wax yaay booy wàññil vocal bi te nga vocalante ak téere bii di alquran al karim alkitabu alladi man daama yaqra'uhu qad daama yuxaatibu bi bil kalimi soo bëggee vocalante ak yàlla wala ma wax ko ci seen langage soo bëggee vocalante ak yàlla ubbil kaamilu alquran alkarim soo ko ubbee ngay liirantu rek yaa ngi wax yàlla buur bi subhanahu wa taala di la xool yàlla am mbégte lool mag mii de moom mu ngi toog lan di jàng alquran say doom say sët fekk la ci sajjaada ba ngay jàng ku daal di ñëw romb rek lamb poos jox la daal di wàcc nga daal di koy ñaanal soo jàngee ba tëj loo ñaanal sa bopp ñaanal ko sa njaboot yàlla buur bi subhanahu wa taala mën koo nangu kon tey lii moo nekkoon suñu jotaay asalafu ma al quran ma kaana min sawaabin fa min arrahmani wa ma kaana min xatain fa min ما كان وما كان من خطأ فمن نفسي أكرم الرحمن جميع المشاهدين والمشاهدات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Nous sommes l'eau multimédia. L'eau multimédia. 27 avenue Émile Badian, Angle Paul Old Dakar. L'eau multimédia spécialiste la informatique bureautique divers matériels réseau et accessoires